di lenn ci li war a am ci béréb bi nga xam ne programme bi ay liggéey yu bare bari la dafa mel ne rek benn bi rek moo noppeekun mu desaat eh, li ñuy wax institut islamique bi war na fay am desaat saal bi ak yeneen liggéey yoo xam ne yu war a dox ci biir béréb bi la nekk moo mel ne daal dañoo bëgg wax ne eh, taxawaguñ dañuy doog a tàmbali di soññi mbokki jullit yëpp rawatina mbokki taalibe yi ñu gën a laxasaayuwaat takkuwaat dafa si yéene yeggale bërëb bi fañ ko war a yeggale te mooy ñu fexe ba liggéey bépp ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko noonu ci ndigalal sëriñ bi jaar ci jëwriñ nee nañ leen ko egg yéen ñëpp ngeen xam ne daal liggéey bi des na bu baax a baax a baax a baax sëriñ baa ngi joxewaat ndigal ñu talal loxo ñëpp ñu bëgg a yàlla